mbolen ñu njabootug serigne touba xam rasul gépp maas àndoo yenu tey fi ci keur serigne touba ngir amal aw waxtaan wo am solo ci njiitul serigne cheikh bas mu sëriñ abdul xaadir mbàkke ginnaaw nag ci guddigi biñu genné serigne cheikh aliou mbacke leral na lan mo wara jotaay bobu ñu àndandoo tewlu ko wa kullu man qaddamani aw sara bu ñu santee suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi julli ci yonente bi muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam di sant al mustafa di ñaan Cheikh Sidi Mokhtar sun borom yagal ko fi li ñu dajale ji nak moy euh Serigne Touba di borom kër gi nu nek moy résidence rasoul Rasul ñu ñewon fi tay yandu fi ak Cheikh bashir Abdou Khadir ci ndigalal sëñ Sidi Mokhtar euh daje fi nak ak bokki yi nga xamné ñoy lañ bokal Serigne Touba. ak cheikh si ak taalibe yi euh, ñu ñëwoon am amee fi kendal waaye it li ñuy wax conseil consultatif ñoom ñoo ko séq muy majlisu soraa boo xam ne ñooy li nga xam ne seeni xel yu rafet seeni xalaat seen pësteef dañ koy faste di jàppale Cheikh Mamadou Bachir ci wàll yu bare bare bari ak ci yoon wi ngir jàppale ci sëñ Sidi Mokhtar Mbacké Euh, tey nag fi lañu yendu euh, def ay waxtaan euh, te ci taabal ji ay xalaat yu bare bari yoo xam ne dafay dëppook jamono ngir ñu gën a mën a jëmale mbir mi kanam waxtaan wu am solo la nag kenn ku ne day mel ni boo waxee yaa ëpp yéene sa moroom ci defar loolu moo fi am bokk yu bari daje fi nag majlis bi ci boppam nag ñu teg ko ci maanaam euh, kilifteef bi nga xam ne mooy chef suprême bi mooy Serigne Sidi Mokhtar Mbacké euh, Serigne Mountakha Mbacké euh, moom mooy personne morale bi nga xam ne moom moo moom la Cheikh Mamadou Bassir di jëwriñ ji léegi itam majlis bi ci boppam kii président bi di Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Chouaïbou ñun coordonnateur rek lañ ci di sant bu baax ñu fi teew di sëñ Modou Mbacké si Euh, Serigne Cheikh ak Serigne Cheikh na ak moom al Sëñ Mouhamed Lamine Bara ak euh, sëñ Cheikh Omar ak Serigne Moustapha Lakaram Serigne Modou Mbacke Abdou Wadoud ak euh, ñi ci sama wet ñëpp bari woon nañ lool wax dëgg yàlla ndax kër gu ci kër yi sëñ Touba ba ci kër yi Mamour Anta Sali kër yi Maam Maaram yi muy ñuy bokk ak sëriñ bi ci deret ñu bokk ñi nga xam ne ñoo doon cheikh si ak taalibe yu mag yi eh, ca seen maam àndoon ak Serigne Touba ca jàppale ko ca rafetal ko eh, ñooñu ñëpp teew nañu di borom xam yu rafet ñoo dajaloo woon tey di waxtaan eh, tëju cib néeg waxtaan seen waxtaan loo xam ne dafay jëmale yoon wi kanam jëmale rawatina màggal gi waaye itam bu màggal gi weesoo ñu war di daje waxtu wu ne di sottante xalaat ndax euh, lépp loo organisé wul du jag ñu fas yéene di nos di seet nosin wi muy organisation ak méthode ndax lépp loo ko def ndax Serigne tubaa dafa liggéeyal sunu borom jaare ko ci Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba liggéey bu néew na ku ko liggéey loolu ba Serigne Touba ba sunu borom fay ko lu mu fayul kenn. Euh, loolu nag moo tax njabootam gu tedd gi nga xam ne dafa daan ñaan naan duriyatan tayyibatan tujaddidu nahya nabil Mustafa tajtahidu loolu tey sunu borom may na ko loolu ndax moom lu mu ñaan boromam rek fekk na boromam may na ko kon njabootam gu sedd gii tey ñoo fi daje woon doon waxtaan euh, tënk bi nag mooy loolu fas nañ yéene lii ñu nos euh, muy majlisu shura muy conseil supérieur muy wéy bu dul màggal itam waxtu wu ne ñetti weer yu neen ñu dajaloo euh, saafonte génne ay xalaat xalaat yooyee ñu mettre ko en application pratique di ko jëfe di ko waxe di ko doxe ba nga xam ne lii nga xam ne sëñ Sidi Moxtaar mi nga xam ne léppam da ko jox Serigne Touba téewul dara Cheikh Mouhamad Bachir bi nga xam ne itam moom itam léppam da koo joxe dégg ndigalal magam ju baax ji sëñ di Moxtaar di porte parole yoon wi te itam kenn ku ne mu jox la sa cër ca la lay la nga yellool moom itam euh, fekke na ko fi fekk na ko fi daa dem ci yitte waaye waroon naa fekkee euh, waxtaan wi ñuy def kon ñoo ngi ñaan ñoom ñëpp euh, sunu borom suturaal leen te liggéey bii nu sóobi itam incha allah nu fas yéene di ko wéel te yàlla nu yàlla may kattan ndax yaakaar naa ne njariñ ak naataange rek moo ci juddu ak liggéeyal Serigne Touba ak liggéeyal réew mi ak liggéeyal addina bi ndax Serigne Touba euh, yemul rek ci réew mi yemul pour aalame bi yëpp la addina bi yëpp la euh, mission ba yonent bi ba suñu borom joxoon yonent bi salaatu alayhi wa sallam roy na ko ba mission boobee la yore mooy euh, fexe ba fépp jag di defar doomu aadama yëpp kon héritage bu mel noonu ku ko yor te mu àgg ci importance bi dafay laaj nak lu melni majlis conseil supérieur mbolo muy dajalo di am di di xalat lañuy xelle rek da lañ ci mëna a organiser yoon wi defalat ko jàppale ci sëñ Sidi Moxtaar mi nga xamné euh limu mu bëgg liggéeyal euh ak ñako jitu jiitu woon itam lañ fi liggéeyoon bayiko fi tàmbale Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Abdoulahi Lahad Serigne Abdou Khadir Serigne Sadio Cheikh Mamadou Lamine Bara ñoom ñëpp kenn ku ne ba nga ñëwé Serigne Touba da roofu ci yow waaw di la jëfloo di la wax kon lu amé nonu solo majlis bu melni itam da koy mëna gungé gunge ngir loola ñu fi bàyyi rëy na go goo majlis rek moko gëna mëna a arku kon yalla nañ ci yalla dimbe euh le conseil consultatif. je m'en vais vous faire lecture du rapport final du conseil consultatif qui vient de se tenir euh, ce mercredi 9 novembre 2016 à la résidence Khadim Rachoul à Touba, sous la direction de Serigne Cheikh Bass Abdou Khader Mbaké, porte-parole du Khalif général des Mourides. Je dois d'abord préciser que c'est le Khalif qui en est le chef suprême. Serigne Muntaha Mbake est le guide moral, Serigne Bass Abdou Khader, le Djaourine, et Serigne Fallou son Choribou le président de, ce conseil. Euh, Majlis le conseil consultatif, sous l'égide de Sérin Sidi Martar, un conseil consultatif, Magdou vient d'être mis sur pied. Cette nouvelle structure, dont les membres sont issus de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba, élargie aux Cheikhs et aux talibés, se veut un cadre permanent de réflexion et d'orientation qui va s'intéresser à toutes les questions relatives au bon fonctionnement du mouridisme tel que conçu et souhaité par son fondateur, cher Ahmadou Bamba. Placé sous la haute autorité du Khalif général des Mourides, ce Majlis qui s'inspire de l'une des meilleures méthodes d'organisation sociale et en largement fait ses preuves sous le règne du prophète de l'islam, vient à son heure du fait de l'importance grandissante de la confrérie et dans un monde en pleine mutation où les défis qui l'interpellent sont légion. C'est donc un cadre de concertation, de réflexion et d'échange qui permettra de raffermir les liens de fraternité dans l'union sacrée des esprits et des cœurs, gage des conditions du parachèvement du projet de Khadim Rasoul contenu dans la charte de Madlaboul Fawzini et de la sauvegarde du riche patrimoine qu'il a légué au Sénégal et à l'humanité. La rigueur, l'abnégation, mais surtout la clairvoyance y seront de mise lorsqu'on a comme chef suprême Sidi comme guide moral un homme de Dieu qui s'appelle et comme un frère et talibé de ces derniers répondant sous le nom de Cher Basirou Abdou Khadir et enfin comme membre les descendants du serviteur du prophète, des chers et des minants talibans. Ces objectifs, le Majlis, en accompagnant Cheikh Bass Abdou Khadir, s'engage à mettre à contribution l'ensemble des composantes de cette grande famille de Cheikh Amadou Bamba, qui constitue un terreau de ressources humaines capables, dans la spiritualité et à l'unisson, de faire toutes les réalisations possibles et imaginables dans tous les secteurs de la vie socio-économique de notre pays. Le Maglis compte œuvrer pour une meilleure organisation de toutes les activités afférentes au bon fonctionnement du mouridisme, au développement intégral et à la cohésion sociale des aspirants.